Pour ndax mu dugg seen bopp dama leen wax ni assemblée nationale dañ ko saisir d'un texte ñaari texte la woon texte constitutionnel ak texte bu modifier le code électoral ñu jël texte boobu bàyyi ko suñu loxo texte bi nekk suñu loxo gouvernement retiré gul texte bobu bobu amagul retrait si bir texte bi limu nek nekk sunu loxo ñom ñu yewu taxawal commission ad hoc kan mo am sañ-sañ bobu kan mo am dogal bobu kan la ka loi bi jox mu man ka def alors que assemblée mi ngi yor dossier bi kooku mépriser assemblée nationale la assemblée su yoré dossier ba paré am nga droit retirer dossier bi ba pare jaaralaat ko fu la neex waaye assemblée yor dossier bi nga créer sa commission ad hoc ñun daanu dem di bokk si loo xam ne jaaduwul c'est illégal c'est illégal te respecté wuñu assemblée bi parce que assemblée doo ko jox dara ni ka kaay nga xool ka gouvernement bi mënoon na ñëw s'il vous déglu leen ma waaye dama leen respecté nag waaye dama leen respecté waaye ñàkk xam-xam mooy bañ déglu nit ku am xam-xam da ngay déglu jàng man tontu damay wax ni Le gouvernement bi def bo jaaduwul warul bayyi texte bi ci loxo assemblée ba pare di il ay fonctionnaire assemblée di wo ay député assemblée mi ngi yor texte bi loolu man wax la nanu bayyi par lobby. bi lu yëngatu ñu wax opposition boycotteuse Macky Sall la andal nangam ak nangam andal leen ak réew mi mo gën ngeen wax mi mo fol bu renier sincèrement. bu leen renier seen serment dara jaru ko li nu def jaaduwul texte bi nu ñëwee si assemblée nationale jaaduwul commission ad hoc bi kan moo ko samp commission ad hoc bi kan moo ko fay fan na xaalisam jóge amuñu fu noo jàngi lu dul pologne et pour dire que liggéey bi dara baaxu si dañu ñëw commission des lois mësuma gis ba ma nekkee man député ba tey ministre ñëw indi sept amendement ci ñii ñii la seen bët la ndëm ba gisuñu dara dama leen bëggoon jox si bés boobu si diggu bëccëg bi làmp ni leen niir leen da ngeen niir leen li ngeen bëgg seet leen que naka ko Socrate doon defee mais dama ni teguwul fenn teguwul fenn nekk na loo xam ni awul yoon ñaareel bi li gën a grave mooy texte de loi bi dafa am lu fi nekk loo xam dafay violer la constitution le conseil constitutionnel def du loi bii moo ko war wax wax wax jooju wax loo saytu bàyyi leen daw wax ji di sànni leneen dama lay teg ay point de droit yoo xam dama bëgg nga may tontu man du ma wax du ma jug koo xam damay wax nii rek lu ma wax leneen dama ko teg fu wóor te dama koy gust ba mu wóor sama xam-xam sax du ma si doy dama see laaj borom xam-xam nan ngeen bëgg a jox jox conseil constitutionnel ay pouvoir pouvoir yoo xam ni bokkul si li nga xam ni constitution bi moom la ko jox di wax ni man na créer structure structure boobu kenn waxul nan lay doxe nan lay amee ñu ñu bëgg joxe ñun assemblée nationale ñu ma bëgg si signé texte de loi bu mel noonu dama ni loolu tegwul fenn une fois de plus débat bi diw la xew après dafa juuma dafa nangam li ngeen def yi xam naa ko man li ma leen wax mooy la jiitu lii ngeen war def da ngeen yéex a projet de loi bi toujours da ngeen di nelaw ba fa ngeen war yeewoo du ngeen yeewoo loolu mooy seen problème waaw toujours da ngeen du ngeen def li dëppoog yoon dama ni da ngeen ko waroon retiré ba ngeen xamee ne rek da ngeen bëgg ay consultation mais mën leen ko bàyyi si loxo assemblée nationale am sañ-sañu assemblée am possibilité ngeen ñëw indi ay amendement laajte amendement amendement am ngeen ko ñun am na droit amendement seen amendement su leen neexee ñu accepté su leen neexee duñu accepté ñun su suñuy amendement am na dafa obéir à certaines règles defu leen loolu lan ngeen def bàyyi texte bi suñu loxo ba defar un texte bu bees ba mu pare ni assemblée yoonam amul benn cër si laa koy soog a texte loolu fan la xewe xewul si benn réew xewul si benn réew fii képp la amee Sénégal kon nag li may wax dafa violé li ma leen du ay par parloo nanu fàttali ko ñun ay député lañu ñun la loi bi ñun la peuple bi jox possibilité ñun ñu voter loi ñun képp ñoo mën loi ba saisir ñun ñoo war doxal na mu waré assemblée wa commission technique su amé commission des lois mën na def ay amendement gouvernement def amendement su gouvernement yaakaaré ni texte bi amna lu bëri lu ci war soppi ne ko retiré waye bu mu def commission ad hoc ba pare di jël ay fonctionnaire da euh, ay fonctionnaire yu bokk fi xam nga loolu jaaduwul ah, waye nanu jàngi xam-xam waye da ngeen reer waye da ngeen reer da ngeen reer